dañu bëgg euh, am li yeneen gox yi am ci sunu gox parce que je pense que Médina gox ci gox yi nga xam ne ñoom ñoo gën a jege askan mais ci ci jëfin amaguñu ay réalisation yoo xamante ni taxaw na fi bu ñun ñëpp ñu mën ci gis suñu bopp dëkkatuñ fi nag d'accord mais on est de la Médina parce que ni fu màggee fi loolu amul lenn loo nga xam ne da ci moom chaque jour on est là di suma papa waaye Cheikh li euh, nit ñi di sawar te xam naa ne li ma yëngal moom moo yëngal ñëpp ku ñu fi toog tey di approche bi nga xam ne am na ko ak doomu aadama yi loolu parce que nag olof dafa naan ku gis nen dafa naan nen mu ngi man moom jàpp naa ni que Euh, il va être futur maire de la ville. ñun de dinañ def suñu suñu kéem lay kàttan ni ñu mën mu ndaw mu bëri dinañ ko def ci moom dooleel ko parce que tamit nag euh, euh, bu fekkente ni nit dafay soox di ànd ak yow leer na la ne bis bu jógee di daw dina ànd ak yow te lenn taxuñu itam comme ni nga ko waxee léegi ñu ñu jege Cheikh yàlla teral na jaam yi ku yeewu yaa ngi lekk ku yeewu yaa ngi naan nit ñi ñu ngi suturaal ci voilà voilà ku yeewu góor mu nga kon kon lu ñuy jàppale rek cher suñu bopp lañ ko jàppale ndaxte Médina moom bés bu ko yàlla taxawoo ba nga xam ne nekk na fi maire gën nañ ne li nga xam ne mooy réewu Médina moom dina ko matal incha allah te man am naa yaqin boobu ndax yàgg naa toog ak moom man ak moom dong ak yàlla ma ko ciy ñaax boobu lii yëpp amul kon ñu ngi am yaakaar ci moom yaakaar boobu nag mooy li may fekk si léegi nday am yi wax faaw nga gën a dëggal sa bopp ndax boo nekkee ci àll di dox te doon gaynde bul xaar ba mu timis ngay daw da ngay ngay dox te président de la république dafay laam-laame bu ñëpp ànd ak moom dina xam ne c'est le bon candidat pour la Médina pour ñun ñëpp ñu mën ci mën ci ñëw taxaw encore une fois j'ai pas de problème avec Bamba Fall mais y en a marre c'est bon yëpp yëpp